Bienvenue sur Salam Vision. salaamaaleykum mbokku internet yi seetaan ginnaaw bu nu sante borom bi julli ci sangu-sangu yi di amaat mbégte ak kontaante del soit nag seet si soxna su nga xamante ni nii yaakaar naa ni kenn dootu leen ko présenté ti euh, ci wàllu seet euh, mu am lu ko ci yàlla saa borom may muy soxna Mariama Sy euh, li wolof di wax nag tungu ne du teew ñuy nataal dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo ak mbokku internet yi nga xamante ni nii Euh, ñu ngi topp euh, di ñu seetaan soxna Mariama ñu ngi lay siyaare. waaw Seydina Ousmane ñu ngi delloo ziar bu wér wér te di lay jox si waay euh, di lay sant te di lay màggal di barki sa turandoo rek di darajee Moustapha di nuy suñu mbokk internet yi ndax saay su ne duñu bàyyi ñuy wéet benn yoon. Euh, ñu ngi béggee ñu ngi kontaane kon ñu ngi fekk fu waay nekk di lay nuyu di lay ziar te di lay tàttagal di nuyu kulli këru diine ak kilifa aada ñu ngi leen ñu ngi leen di ziar di nuyu daal suñu mbokk sëriñ si bokku mbokk seetkat yi ñu ngi nuyu daal àddina wërngeel képp di ñaanal ñëpp ci at mu bees mi atum jàmm atum xéewal atum sutura euh, at mi ñu nekk yal na doon atum jàmm ñëpp ci barki Mohamed lu waay di wut ak lu waaye di yontu yal na ko yàlla matale sa jotale la ko ñu nekk ci prison yi nag dama leen di nuyu ñoom i tamit ndax dañ leen di fàtte te waruñu leen di fàtte mm-hmm. ndax ne na kaso nit def na dugg fa nit deful dugg fa euh, nit itam nattu yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala day wàcc ci doomi aadama kon ñi nga xamante ne ñu ngi ci kaso yi di jànkonteel ay jafe-jafe mu metti loolu ñu ngi leen koy massawu boobu ñu ngi leen di massawu te bokk ak ñoom metti bi ndax ne naa Ousmane mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi ci prison yi fàtte nañ leen am na ñoo xam ne ñu fa tëdd itam ay at ñu fa tëdd gi suñu benn mbokk mm-hmm. kon ku sa mbokk nekk ci prison yi rek jàppale ko ci nattoom boobu mu yeggale mission am mm-hmm. ndax nee naa àddina loo gis rek mission la te ku sa mission nu ko yàlla tuddee alakuli aali noonu nga koy dundee mm-hmm. kon na ñu nekk ci prison yi ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di kontaane di béggee ñëpp di kontaane ñëpp di nuyu ñi itam ñi nga xam te dañoo tëdd ci hôpitaux yi feebar di leen di ñaanal yàlla defal leen wér yàlla wéral ñëpp yàlla fëgg bopp ñëpp wéral kullihum koo xam ne yaa ngi sooxaale jàngoro kon nag ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax Ousmane jërëjëf euh, soxna Mariama Sy euh, soppey Serigne Babacar si bu mag bi euh, fi nga duggee am na solo trop ndaxte da laal ñu nga xamante ni nii ci yëf yi la ñu bokk muy ñu nekk ci prison yi ak ñi nga xamante ni aussi itam ñoom ñoo jiitu rawatina ci ak mu bees mi ñu ñaanal képp ku nga xamante ni yaa ngi ci prison yi yàlla saa borom gaaw génn la fa ana tey lan moo waral soxna Mariama si soppey Serigne Babacar Sy. waaw li waral lool sant rek ndax nee naa sëñ Babacar buñ ciy wax tey ba ëllëg duñ daal di jeexal ndaxte dañ ko bëgg wëlbatikuwaat bokkaat ci njabootu Seydi Aboubacar bokk bokkaat ak moom ñaari yoon kon ñun bu ñu bëggul sëñ Babacar kon xamu ku ñuy bëgg buñ ko wóolul gëmuñu ko itam xamu ku ñuy wóolu ndax defal nañ ñu gis euh, waxal nañ ñu gis jëfal nañ nit ñu gis kon itam soppee sëñ Babacar boobu rek mm. nee naa doonul loo xamante ni dañ cee ñor taab bi mais dañ koo gësam kon macha allah am macha allah li ñor tab bi ak li gësam indi du benn mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci euh, suñu page TikTok euh, ñi ngi dalal tey ku nga xamante ni nii wax naa leen ko xam-xamam dafa màcc lool jëm ci wàllu set muy soxna Mariama Sy euh, mu Serigne Babacar Sy man ngeen ko woo ci numéro yi di 77 060 43 10 ñu baamtuwaat ko 77 060 43 10 soxna Mariama ci wàllu set nan nan nan fan nga tàmbalee ci wàllu set. egsi fi nga parce que euh, bu ñu bu ñu bu ñu toppee tuuti say gëstu xool fi nga jaar nekkoon nga ci rajo ba nit ñi ràññee la foofu noonu nga toog di seet ba tey jii nii nga nekk fi nga xamante ni moo di sa kër nit ñi di jëflante ak yow. waaw Ousmane laaj nga ma lu ma neex ndax li ma neex mooy fi nga tàmbale ci wàllu seet ndax ne naa dama daan jàkkaarloo nii rek naa la defal ni waxal li sama daan ma ko teree euh, li may wax loo du ko yëg du ko xam itam te du ko tey ndax nee naa day mel ni comme prise boo xamante ne dafa am lu lay maas ngay jalti jalti di jàkkaarloo nit ñi di leen di wax euh, bu ma tëddee guddi ñu wan ma loo xam ne dafa war a xew suba itam loolu yëpp mbirum suñu borom euh, seet ni ma dikkee bu ñu toogoon di ko fi wax Seydina Ousmane duñu fi jógee duñ fi jógee mais daal seet ni ñu dikkee doon na loo xam ne lu yeme la mm-hmm. nee naa man bu may seet du ma teg dara damay jàkkaarloo nit ki naan la lii ak lii day jaaxal ñu bari mm-hmm. ndaxte nee naa bu may seetal nit ci téléphone sa voix ci laa lay seetalee ndax loolu yëpp defe naa don de Dieu ak hmm. miracle de Dieu kon ñun dañuy sant yàlla ndax seet moom partout dans le monde ci la ñu xam hmm. euh, yaa ngi naan dama nekkoon ci benn rajo waaw dama nekkoon ci rajo doon fa liggéey hmm. doon fa seet lu leer naañ seet lu neex di fay toj boobu ma wëlbatiku di toj sama kër kon seet nee dafa bokk ci ñun macha allah Seydina Ousmane <laughs> jaajëfati ndeysaan jërëjëfati xam nga wàllum ceet dafa xaw a nekk lu doy waar tey am na ñoo xamante ni dañuy bàyyeekoo seen kër ñëw ci ki nga xamante nii moom la ñu am ci moom yaakaar euh, kooku delluwaat di leen poser question ana lan moo la dal te yaakaar naa nit ki ñëw ci yow ni la seetal ma waroo koo laaj lan moo nekk ci moom seet googu noonu ngay seet luy luy luy luñ lay wax la muy nekk say nopp wala da ngay xool nit ki rek gis li nekk ci moom. non dañ ma koy dee luñ may dee la ay rawaan la àndal te nee na dañ may dee may wax. ndax rab yi ma am itam dama naa ah, lu ma doonu la mm-hmm. am na jël naa sama côté yaay sama Euh, jël yi itam ci sama loo xamante ne samay bagages yi bopp la. Mhm. Euh, kon nee naa ndakaaru njaay kii <laughs> nee naa lu bari fii la ma fekk se rawatina wàllu seet ndax géej gi dañ ci am wàll. Mhm. te yu bari doon na ma feeñ wet ci affaire géej gi ndax su ma demoon géej. Mhm. day mel ne daf sama rawaan dafay taxaw may jàkkaarloo di koy wax kon nee naa seet moom macha allah yàlla may nañ ci daal. ndax nee naa man bu nit ñëwee du ma la laaj ndax laajee nit lu muy seetlu jaratu nga koy di seetal Ousmane. bari na xam loolu la la laaj. non non loolu du yoon. dangay seetal nit ki ba mu yéemu baa mu taf gémmiñam ndax li tax loolu nee naa comme li may wax mayu yàlla la du ñun mais yàlla suñ borom. Mhm. moom moo ñu may kon dañuy delluwaat yàlla njukkal di koy sant rek. Mhm. Ousmane ci lan ngay faral di seete parce que am na ñoo xam ni des fois dañuy ñëw ñu teg ndox am ñoo xam ne nii suuf la ñuy jël soxna Mariama si moom euh, ci lan lay seete. waaw li may seetee bari na euh, ndax nee naa man voix nit dama ci seet. kon xam nga ni kàddu rek waaw kon xam ni kooku moom qualifié na seet moom mhm. damay seet ci kàddu nit damay seet ci loxoy nit damay jàkkaarlu nit di lay wax jaxarañ damay seet ci wàllu suuf damay seet ci wàllu ramli bale sax dama ciy seet kon xam nga lool yëpp mayum yàlla ndoxu potit nit day fóot mu mel dafa am lu ñu may digtal ndoxum potit wax wallaahi wal quran kon li ñu yàlla na de soxna Mariama loolu yéeme mayu yàlla ndoxum potit nan nga ci mën a seeti nit ba na ko yàlla maye na lépp ci ndox mi ni muy xëbee noonu mhm. euh, furit boobu di yéeg yenn saa bu ma gisee nit koy fóot day mel dañ ma yëngal nee naa li nelaw ci man bu boobaa day daal di yeewu Ousmane kon xam nga mbirum seet yéeme na mm-hmm. yéeme na mais yàlla maye na lépp daal <laughs> yàlla maye na lépp euh, yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy topp ci suñu page TikTok euh, tey wax naa leen ko euh, ñi ngi dalal ku nga xamante ni nii ci wàllum seet yàlla saa borom may na ko ci mën ngeen a jëlaat numéro am muy 77 060 43 10 77 060 43 10 tey nit ki nga xamante ni dafa nekk bitim réew boo koy seetal ci ci ci ci ci ci ci naka lay lay lay lay dikkee loolu. waaw Moussa Ousmane boobu ma gën a neex sax ndax ne naa ki ma woo bitim réew. Euh, da ngay toog xam nga ñu nekk bitim réew dañoo jaaxle. Mhm. Euh, te à chaque fois dañaa Mariama yónnee naa sama xaalis pour mu seetaloo mais seetalu ma ndax dañ koy yàqamte. Mhm. day mel ne yow mi nam ma naan ataaya naanoo ko sa bopp di métti. Mhm. kon ki nga xam ne dafa nekk bitim réew bëgg di seetlu day bëgg nga gindi ko ndax ne naa gisaane gindi nit ki la. Euh, ki nekk bitim réew su ma woowee bu ma ko ne temps lay seetal bu ko dugalee turam laa koy laaj turu yaayam ak atam ma seetal ko ci âge am koy seetal mhm. moo dama naan nga la nit koo xamante ne même bi dañ ci seet gratuite mhm. ku dugg sama page boo wootee bu fekkee joxe woo âge normal bi seet bi day daw duñ la gis mhm. mais damay bëgg ki bu nga xamante ne jox na ma turam âge am normal ma seetal la ba mu daal di wasaa ndax nee naa seet sama yëf la xam nga foofu sax ci muy ci côté réseaux sociaux yi euh, ndaxte li wolof di wax naan maa ngi nii kuy nëbbatu du ko wax euh, waaw sàcc bi du ko wax bi du ko wax déedéet ñu seetlu ay émission yoo xam ne da nga def en di seetal ay nit leen ko may gratuite kon xam ñeme nga fa nga jëm. waaw ñeme naa fi ma jëm ndax nee naa li ñu war a am yàlla jox nañ ko ba pare Ousmane euh, ndax teraanga gu ne jaar na suñu loxo ngir sama jëmm góor gi Seydi Aboubacar Sy lu nekk nit jox nañ ko ci wàllu seet wàllu gisaane am nañ li ñuy am ba pare kon bu ñuy seetal nit day mel ni comme rek ngay liggéey ba at bi jot ñu la génneel asaka. ñun tam bu ñuy seet war nga mën a toog nag jox say clientèle ak say clients yi nga xamante ne woolu nañ soxna Mariama bëgg nañ ko te amuñu moyen mhm. pour fay seet bi mhm. seeru mais jamono ji moo metti dëkk bi toj mm-hmm. bu nit ñi nag bëggee loolu moo tax dama naan ñi nga xamante ne am nañ moyen nañ bàyyi ñi amul moyen ñu seetal leen gratuit ci TikTok bi ndax daf may daal di neex euh, nit nekk bitim réew euh, di war a am liggéey te mënul am liggéey mm-hmm. nga génnee la ko ne ko génneel sow wala génneel benn doomu ko mu génnee ko am liggéey mm-hmm. nit ki nga xam dafa toog jaaxle te amul moyen pour fay seet nga ne ko génneel nangam bi mu génnee ko Ousmane daal di jot ay kon xam nga ñu ngi jihaat ñu ngi jaamu suñu borom mm-hmm. kon nag liggéey bii nit ki li ngay liggéey ci nga war a mën a jaamoo yàlloo te ñun tam lii la yàlla may ci la ñuy jaamoo yàlla wutuñu mm-hmm. ci xaalis ndax ne naa namuñu dara yàlla defal nañu lépp <laughs> tubarkalla euh, namuñu dara moom euh, doo ko wax ki nga xamante ni moo ñëw teew euh, ndaxte ku la fekk fii xam ni tubarkalla namuloo dara tey ci wàllum seet mbirum sarax nekk loo xamante ni lu yéeme la nit ki da koy seetal rek gis sarax bi nga xamante ni moom la war a génne mu génne. Ousmane dama ci insister te damay taxaw ko nit génne saraxam ndax nee sarax day fànq luy fànq ba yàlla ne génne leen seeni sarax na day fànq dee. Mm-hmm. luy fànq dee war na mën a fànq gàllankoor gu la war a dal muy tawatu yaram. Mm-hmm. muy wàllu feebar muy wàllu itam loo xam ne yaa ngi koy wut mu jafe muy wàllu goo xam ne ndog gu la war a dal. Mm-hmm. nga génne sarax yàlla fànqal la loolu kon. nee naa nit ñi nañuy insister di génne ay sarax mhm. ndax man damay topp nag dama naan la génneel sa sarax mhm. boo ko defee am lii boo ko defee gis di te boo koy def effectivement di gis yoon bi nga xamante mhm. fa nga war a am yoo fi nga war a fi nga war a aw la ndax daf may daal di neex nit ki di génnee saraxam di gis résultat. Mhm. mais am na ci ñoo xam ne des fois nga seetal leen euh, peut-être fi ñu nekk du ñu am possibilité yi euh, pour génne sarax yi est-ce que yow euh, ñoom duñ la doo mas di seq ñoom yu mel noonu ñu ñu ne la yónnee la xaalis bi maanaam pour nga génneel leen sarax yi ñoom. non non bariwul ndax li tax ma ne bariwul am na ñoo xamante ne dañuy foo ndax dóorkat dafa am. ndax mën nga leen nit yónnee ma sa xaalis ma génneel sarax mu yónnee la ko doog ko génneel moo tax man comme soo xamante ne sekkuñu ko duma la ko génneel mais ki xam ne sekk naa ko moom su ma ko xee ma foto ko envoyé ko génnee ko am na ñoo xamante ne dama naan la wutal ko la koy defal mm-hmm. ndax xam naa fi ma ko teg te xam na li tax ma wax la ko macha allah macha allah bi nga nekkee ci euh, liggéey bi ak léegi yàgg na euh, lan nga mas a def ci seet mu am fu mu yóbbu foo xamante ni jour boobu noonu xam nga ni tey euh, def nga lu rëy waaw lii nga laaj laaj nga laaj gu am am solo Euh, benn euh, nit dafa ñëw am jafe-jafe ci diggante moom ak jëkkëram euh, ma seetal ko mu toog di jooy ma àndandoog moom di jooy xam nga ndax mu toog di jooy Ousmane mu ko seetal bu gisal ko sëyam day tas te bëgg ku dul mu jooyee ne ma sama sëy bu tasee sama àddina yàqu ma ne ko loolu foo ko teg mu sama jëkkër dafa am fu ñu jaar jëkkëram dafa xëy tey war ko te ni ko waree dafa yéeme mm-hmm. ndax war gi mu ko war mooy mu ànd ci këram ñuy liggéey di dajale ba am ay millions tey mu xëy am alal daal di jekku jëkkër ji xëy wan ko ginnaaw mm-hmm. mu toog di jooy oh. man xam naa li muy jooy ndax xam naa li muy jooy ci xolam la ko tibbee mm-hmm. kon nag nee naa itam seet dafa doy waar mm-hmm. dangay toog di seetandoog nit ki ba toog di ciy jooy ndax li nga ciy jooy yow yaa ko xam lu la euh, dama ko yërëm dama ko yërëm dama ndax ah, dafa am ñoo xamante ne dañ ko doon xeex ci sëyam ay satukaay am ñoo xamante ne dañ doon bëgg sëy bi tas mm-hmm. léegi nag loolu yëpp bu ñëwee teg ci kaw muy sóor ay noonam dafa metti dafa metti perte eh, eh, eh, mm-hmm. macha allah macha allah euh, kon jour boobu doolu tubaarkàlla nekk na loo xamante ni lu la lu la lu la yéem la euh, ndax tamit nit ki nga seetal ko ba pare gis loo xamante ni neexu ci xol Euh, tamit loolu jar na jar na jar na ay jooy jërëjëfati euh, soxna Mariama Sy euh, ñu ñëw tuuti ci wàllu actualité ndax tamit sénégalaise nga te gis nga dëkk bi fi mu toll nii ni mu jaxasooyee surtout ci côté politique bi tey président Macky Sall ñii ngi wax troisième mandat ñii naan dina am ñii naan du am yow en tant que seetkat nan nga gisee loolu. waaw ñëw nga ci point bu am am solo ndax itam fii rek la ñu a waxee. Mm. Euh, ndaxte nit ki booy wax da ngay wax fi ñu la déggee mais booy wax koo xamante ne déggu la itam du safe ndax su ma toogee naan Macky Sall lii dina ko dal dina ko dal te déggu ko te fii lañ mën a waxee pour mu dégg ñu euh, bu doon sama sago Macky Sall du posé troisième mandat ndax du ko jig. moom du ko jig troisième mandat. non du ko jig. Ah, lu tax loolu nga wax bu doy waar dina ko dal. te bu boobaa mun na jur ci entourage ak moom defet boo xamante ne ne dundul fàtte la ndax ni mu nar a demee la daal bu ma sañoon du ko du demandé. déedéet. yow daal boo sañoon Macky Sall du wax waxu troisième mandat. waaw ndax dama gis tolof tolof boo xam ne mën na ko gàllankoor ci biir troisième mandat boobu. Hmm. bu ma sañoon du ko jël ndaxte moom mi instant bi hmm. mën na ma seede maa ngi toogoon ne Macky Sall day jël deuxième mandat da koy am par force. Hmm. yàlla dogal mu am ko te bu amul woon laa koy waaye bu ma sañoon troisième mandat na ko teg ci suuf. day dem vaar te vaar wóorut. vaar de wóorut. Eh, xam nga jamonoy Laye Wade 2012 defe naa la Laye Wade nguur bi eh, defe naa ah? léegi nag gis nga laay waat jamono yi muy quitté guur boobu vaar ba amul xewul mm-hmm. mais léegi vaar daa xew nit ki li ngay def moom lañ lay tegal tegalaat la ko tegalaat loolu mën na la jural loo xamante ne déception. preuve nar a metti la. xam nga xam nga nga euh, doguma la. mais Moustapha Niass bi mu nekkee président assemblée. Euh, benn jour am na fi coow lu amoon jamonoy Abdoulaye Wade bi xeer wi. gone ko koo génne. dañ ko koy génneel moo tax nee naa réseaux sociaux yi di def loo xam. Mm-hmm. ndax nee naa loo fi def tey. Euh, day day toog ba sa ay sët kon lu fi di def ak lu fi nit wax rek euh, nan ko seetaat mhm. na nga ko seetaat mais daal troisième mandat daal président euh, ñu ngi la koy ñaan boo ko mënee bàyyi nga bàyyi ko ah, bu fekkente ne wóolu nga sa bopp rek nga dem waaye daal moom mhm. nee naa na lool ci yow li ci gis daal moom lëndëm lëndëm na trop trop trop déception totale mhm. kon mbokk internet yi yéen a ko déggandoo président de la république Macky Sall troisième mandat bi soxna Mariama Sy nee lim ci gis la lëndëm na trop bu dee da nga koo ŋànk bi yeboo nga yàbbi ko Ousmane Sonko Ousmane Sonko gis ngeen dina doon président. sama benn xarit da ne ma. Hmm. Euh, nee na benn un moo ko gënal téeméeri zéro. benn un moo ko gënal téeméeri zéro moo tax ma waxee loolu Sonko moom na dem mu yël ba ci kanam euh, waaye daal euh, na dem ba ci kanam ndax xam lan moo tax. Hmm. nit su nekkee ci yoon jéem ko encouragé. Hmm. ndaxte nee naa fii Sénégal la te ñun dañu am suñuy principe. mais bis bu élection yi jotee ñu bari dinañ tëgg seen dinañ dëkku seen làmb moo tax na gën a dëggal boppam. mu gën a dëggal boppam gën a dëggal boppam bu fekkente ne bëgg na jël nguur gi. na gën a dëggal boppam ndax nee naa nee naa ay futur président dañ teew. futur président waaw pour bëgg a ñëw daal di poser seen candidat te mën na indi euh, ñol ñol moo tax Ousmane Sonko na dëggal boppam li muy togg na ko nii pour mu ñor. Hmm. Mhm. ci 2024 bi 2024 bi te entourage mu defaraat ko moo balay war di koy. Hmm? daal waaw da nga gis ay bu baax gis naa ci ay wor bu baax moo dañ koy ñaan entourage am na ko gën a defar te gën a defaraat toogaayam ndax nee naa da ngay togg rusi sa rusi ñuluk sa ñuluk tey ba war a hmm. ba dara desu lu dul lekk rek nit bëgg ci xëpp suuf hmm. gis naa ñu ko wër ñoo xam ne dañuy bëgg xajamal mbiram daal moo tax na jóg ci boppam Ousmane ndax ñun dañuy wax lu ñëw wax lu ñëwagul yàlla nag moo xam luy xew suba mais li ñu gis dañ koy wax ndax ñeme nañ fiñ ñu jëm <laughs> en tout cas li ma leen waxoon sànq naa leen maa ngi nii kuy ko wax kon daal Ousmane Sonko bu ma déggee sa wax ci deux mille vingt quatre bii vingt quatre bii élection yi ñu dëngal mu defaraat toogaayam. bu baax na defaraat toogaayam bu baax maa wax te ñeme naa ko. te ku ma wax ma wax la fii laa ko teg aw ma tiit ci li may wax ndax ma nee naa du ma saaga du ma fëgg sama dënn te du ma bàkku. bu defarul toogaayam nag. bu defarul toogaayam war mën na am ci entourage am moom. Hmm. mais bu defaree toogaayam bu toogaay bi jekkee na jàpp ne lépp ngi ci suñu kanam incha allahu rabbi. mbirum Sonko ak Adji Sarr loo ci gis. xanaa mère ndax c'est la première fois ñu violé mère waxuma xale de violé mère Adji Sarr xale kon violé nañ ko ñu violé ay doomu jàmbur te jaarul ñu di ñuy ba ay bakkan di kon bu ñu tolloo foofu ñu Sénégal am na leneen lu ci laxasu. lees hmm. mhm. mën a wax nag bariwul mais nee naa c'est pas la première fois violé nañ xale bu am 3 ans Touba dafa wàcc liggéey te loolu kenn. poursuivre ko te déggu leen ko fenn. Mhm. Adji Sarr xam na lu ne ba dem ba am doom. Mhm. am na doom ñëpp xam nañ loolu. mu wëlbati ko coowam bëgg ñoo jural fitna. Mhm. man naa jaru ko loolu rek li daa li yàq nguuru Macky Sall la. affaire Adji Sarr dafa wàññi faible am foofu noonu. dafa fa wàññi benn comme maanaam dafa dafa benn parti Macky daal dafa damm mm-hmm. resoom daal Adji Sarr da koo damm bu ma soñoon coowal Adji Sarr Macky Sall bu daal yàlla dimbali ko moom coowal Adji Sarr yàqal na ko yàqal njabootam yaa wàññi na it ci mbirum soxnaam moom xam na bu baax li may wax mm-hmm. mais daal coowal Adji Sarr moom bu ko bàyyiwul Macky Sall du mm-hmm. jóg ci ay problème ay jafe-jafe na bàyyi coowal Adji Sarr seet na Adji Sarr wax dëgg mbiram dafa ànd ak affaire saytaan li ma ne Ousmane Sonko cuuraayu dëmm la. Hmm. ku ko laal rek jëfur. Ousmane Sonko cuuraayu la cuuraayu dëmm. cuuraayu dëmm mooy la ku ko laal ñëpp daal di dañ jëfur ah. ah. mooy cuuraay ci kër koo xam ni dañ leen di tooñ. dañ lay tooñ nga jëfur jëfur loolu la. kon nag mu wax Adji Sarr ak Ousmane Sonko man dama cee taay ndax dañ cee wax wax wax bay bëgg a hmm. ndax ñun jigéen ñëpp dañoo am gàcce ndax Adji Sarr jigéen ñëpp yàq na liggéeyu jàmbur yàq entreprise yu jàmbur yi yàq lépp mm-hmm. mais biñ toppee coowal Adji Sarr ba tey amaguñu preuve preuve laa fi gisul te gisuma dara loo xam ne am na ci xorom lu dul violé nañ ko mm-hmm. fii du moom rek lañ fi violé <laughs> mais baatu viol sax dafa doy waar en tant que jigéen euh, tey jigéen bu nu violé est que di am temps wu génn ci presse di wax wala ngay am dëkk ba da ngay am kersa jigéen danaan bari kersa mais ngay tiitaroo ne tëddee nañ ma <laughs> ban jigéen ju am fulla am personnalité diñ ci boppam man du ma ko nangu te Adji Sarr bu doon bu ma sama rakk du ko nangu bu doon sama doom du ma nangu lii muy def waaye nag nit bu sa yaay teelee làqu mhm. pour nga am kilifa day jafe ndax ni ñi nekk sa ginnaaw yëpp dañ lay jay mhm. moo tax kilifa ak waajur dafa am solo ci doom ndax éducation de base dafa am solo macha allah en tout cas wax naa leen ko nee naa leen euh, maa ngi nii kuy nëbbatu du ko wax tey soxna Mariama Sy. xam nga moo tax lan moo tax mu yéeme. Adji Sarr su toogee daal di naan waa pare gu maag Ousmane Sonko. kon kooku xam nga fu mu xam na ko. te xam na bu wax ne am na ginnaaw. ndax ne naa bu njëkk ba tëddee nañ ma da nga daan am kees sax bu la tëddee waan sax boo génnee da ngay làqatu. yooyu yëf yi jàpp nga dafa lu ci laxas. Ah, kay bien sûr am na lu ci laxas waaye ñu tëddee la nga génn di koy tiitaroo ak naan Ousmane Sonko nañ leeral suñu diggante yàlla rek a mën a leeral diggante Adji Sarr ak wallahi wal xuraan bu fekkee leeral la ñu xaar xanaa ñu atte attim àdduna rek te buñ deewee yàlla dina attewaat mm-hmm. kon ku xool ne boo deewee yàlla dafay attewaat nga xool bu baax la nga war a def xool sa travail bàmmeel mm-hmm. xool sa diggante ak yàlla ñaata ñaata nit yu doon wax ci coowal aji saar xam 14 da doon wax mm-hmm. ñi deewaat da nga xam luñ toll <laughs> kon nag wallaahu a'lam rek yàlla ñu yàlla di jàppale jërëjëfati soxna soxna si en tout cas ñi ngi dugg ci at mu bees euh, saraxu at mu bees bi waaw saraxu at dañ ko war a génne ndax dégg naa sëriñ bu toog ne ndaw yi dina bari ñu dee nee naa kuy dee yàllaa ko xam ndax sàkkuñu suñu bopp te yàlla fam mu eh, ràq doomu aadama nit yegg fa ba di koy gis yàlla dénkul kenn ruuf malaka bi jël si sax yàlla ko yabal ne ko demal jëlal ma ruu diw ndax saa yu dina la yëngal lu mat cinquante fois yëngal bu ngay gis nit jékki-jékki rek ti soli kon yàlla xam nga ne kooku bu lay sàkk fa mu jent sa ruu moom rek ko xam kon nañ leen di bàyyi ndaw yi dafay dee mais sarko at mi am na ceeb la ñu war a génne ak dugub kenn ku nekk génneel kilo ceeb kilo dugub kilo mboq yàlla dafa ñu at mu neex kilo ceeb kilo ceeb kilo mboq kilo dugub yàlla dafa ñu atum naataange atum sotura atum xéewal atum jàmm atum wér mm-hmm. at mi <laughs> mën na neex ba dàq yeneen at yi ndax nee naa at yu metti yi passé yëpp a metti mm-hmm. jóge nañ ci corona ñu ci coowal aji saar chaque jour ñu jëm ci ay coow yoo xamante ne problème yoo xam ne doo comprendre mm-hmm. yooyu yëpp mbugalu suñu borom mm-hmm. ci ñun doomi aadama yi nga xam ne mata dinañu mm-hmm. di tooñ suñu borom chaque jour mu diñuy jéggal ñu bëgg naan dañuy continuer di def suñuy mbir yàlla gëmul nelawul Ousmane yàlla gëmul nelawul euh, dégg naa dëgg kon sarax yooyu noonu euh, nañ ko nañ ko nañ ko teel a fàggu euh, génne ko ñu ñëwaat tuuti ci actualité ba tey ndaxte bari na ay seetkat ak yenn sëriñ yi lu mel ne làmb su amee wala dara di waaj a ñëw ñu def ay vidéo wax des fois nag ñenn ñi dal ci des fois mu demee neneen yow en tant que seetkat nit ñi xam la bu baax a baax kenn xamula ci caaxaan ana ñooñu noonu noonu loolu ñuy def nan nga ko gisee. man damay ruus sax di tourner ay émission léegi xam nga ndax may ruus a doon sëriñ yëpp a doon sëriñ te la ñuy wax xamuñu ci dara dara dara xaaj bi yëpp na damay gis nit koo xam da nga naan lii day am fëgg sa man damay gis ku naan lii dafay am insisté dëggal boppam ma xool rek xeeb la ndax duñu wax incha allah duñu wax bu neexee yàlla day mel ni ñoom ñoo war a dogal di dogal moo tax ku ci dem vaar ñaari weer ngay làkkatu génnaat dëkk bi dafa toj ñii dem ci ñoom it nañuy bàyyi xel itam ñi nga xam te ne ñi fay seen xaalis ñu xam bu baax euh, montre bu baax bi ak bu baax bi ndax ne naa euh, montre bu bon yu bon yi léegi bari na dee dem ci sëriñ mu encaissé suba nga ko gis wala nga daal di dégg nit ki wax benn affaire mu tombeek waaw suñu borom di suba mu fëgg dënnam maa wax li maa wax laa nit ñi suba ñu daw song ko ginnaaw suba lay xëy rek laalee ko di mut beneen dëkkuwaay kon nag nañ leen di bàyyi loolu xel ndax boo taalee réseaux sociaux yi mhm. mhm. naa li fëgg wax fii fii saaga man loolu laa gis ma ñaawlu ko lool mettit lu ko lool lool lool lool ndaxte nee naa sëriñ bu njëkk ba danaan toog ci ruqam mhm. du wut publicité mais comme léegi dëkk bi ñëpp a daw wuti publicité rek kon il fallait que nga wut ko ndax itam loolu mooy doxal sa liggéey mais métier business daal man ci laa ëpp li may gis business waaw ba tey ñi ngi ànd ak moom soxna Mariama si mu Serigne Babacar mais soxna Mariama seen liggéey bii nii am na ci loo xamante ni euh, gis nañ ko mu jaaxal ñu trop muy Serigne si nga xam ne nii des fois da ngay ñëw ñu war laa seetal mais ñu lay proposer ay mbiri caaxaan yoo xamante ni mën naa sax jaar ci baat bi maanaam xemmeñ la pour bëgg laa tëddee ndax loolu bokk na ci liggéey bi. question bu am am am solo ndax nee naa waxuma seetal la tëddee la dañ lay sangat ne la indil ñu mànniw nga naan fan laa ko jëlee mbala nga jaaxle ñu ne ñëwal ñu tëddee pour jël mànniw boobu daal di la ci ñaanal bés bu ñu ko la defee dañ dee lay def ba pare dootoo leen bàyyeeti dootoo leen bàyyeeti ndax xam nga lan moo tax mm-hmm. dañuy ba pare sa wërsëg dañuy fay yow mi nga xam ne yow la ñuy tëddee surtout jabaru jàmbur yi mm-hmm. jabaru moodu moodu yi dañuy bàyyi di dem ci sëriñ Euh, sëriñ si góor si laa wax sëriñ si góor si nay leer mhm. na fa jabar moodu moodu yi di am sa jëkkër mu nekk bitim réew ndeysaan ngay seetlu sa diggante yaag a saay mhm. nga moom moo laaj mhm. ba ci kooba yi nag ma ñëw am na ñoo xam ne dañu seen benn basan seen euh, fas yéene jigéen ju leen ne konkon ñun la entré pour bëgg la tëddee ndax sa wërsëg la ñuy bëgg di àndee ak yow mhm. euh, pour bëgg la itam def loo xamante ne nii maanaam di sëy ak yow sëriñ si loolu la ñuy dund jamono yi tembe tembe te ñoom ñi may déglu xam nañ li may wax ah mhm. ndax ñoom ñi koy def xam nañ ko ndax da ngay dem ci moom am ci moom yaakaar pour bëgg mu seetal la mbala mu ñaanal la day mujj obligé bëgg la jabaroo am na fi mhm. xam nga lool dëkk baa ngi toj kon nag gën la dama naan ñi koy def laa wax de man waxuma ko deful ndax ku deful du dégg ñiy def laa wax nañu bàyyi jigéen ñi nga xam dañ leen yaakaar surtout xale yi jigéen ñi jànq ji dañuy bàyyi di dem si sëriñ di nëbbatu seen yaay yi mm-hmm. di seen famille da ngay jékki-jékki xale bu jigéen bu ëmb ku ko ëmboon ñu sëriñ bi fi nekkoon ñu dem ibbi buntu sëriñ ba fekk sëriñ ba daw na fu mu uh-huh. dañ ko xam yéeme na trop ak uh, am na ci tey loo xamante ni nii man nit moo dem ci sëriñ ñëw nettali moom uh, dem na ci sëriñ ba di ñaanlu sëriñ bi ni ko il faut que ma am maniwu jabaru jàmbur ànd naa jëkkëram dem ci sëriñ mu may déglu moo fi ñëw barki dem ba wax ma ko fii la toog bi mu àndee jëkkëram sëriñ bi ne ko may ko ma daal di koy seetal mu seetal ko ba ne ko yàgg jëkkër di ngeen am doom mais sa jëkkër dafa oyof li ma defal faa defaloo ko si sama si sama ndox yi commencé tànk yi xanaa dégg nga ma yaa may dégg mais soxna Mariama mais man niwu dafay am lu muy dolli ci gàllaaj ma ne mu teg ko ci tànk yi nii jëkkër jaa ngi toog ci bunda bi mu dugg see ma ne ko ban sëriñ nga demoon pour mu ñaanal la mu bëgg la tëddee mu ne ma waa commencé di lee ma kan léegi nag waat lu ngóor a jëkkër ji la téye di tëddee ndaw sa ndaw si ne day tëdd ba guddee xelam nekk ca waaja mu jóg. xanaa daa am lu moom la muy def ginnaawam la ko def bind ka ah dëkk baa ngi toj. <laughs> waaye soxna loolu moom nan lañ ci euh, mën a mucc. jigéen ñi dañoo bëgg sëriñ sama mbokku jigéen dañoo bëgg sëriñ te sëriñ si léegi ñiy ñaan ak ñiy fo ak ñiy jaaxaan dañoo am différence mhm. bu yeboon nañu xam ne bu baax taraange bu baax bi. Mhm. nañuy bàyyi bu bon bi tey dem ci bu baax bi. sëriñ si génération bi laa la wax de ñii may gis nii. koobay baax na ku bëgg ñaan di ñu lay gis. Ah, dee fi teggi ñeen ñi ndax kuy tëri kuy teggee ci ay. Mm-hmm. kon loolu dañ koy bàyyi xel ndax dama gis ñu ko dund gis ñu ko dund te itam bu ñu ci defoon émission wallaahi def live mm-hmm. ñëpp ci commenté ne dal na ma ak naa ko xanaa leer na. Mm-hmm. élèves yi itam dañuy gàddu seen saak wër di wër ci seetkat yi ci sëriñ si na leen di bàyyi loolu xale du dem ci sëriñ xale du dem ñaanu te tàgguwoo sa yaay ak jéeg yi nga xam dañoo sëy ba tas am benn doom ak jéeg yi nga xam dañoo nekk ci sëy ñooñu la sëriñ yi di wër mm-hmm. kon nañ leen di bàyyi loolu am nañu koy dund sëriñ si da ngay dem ci ñoom yaakaar leen ñu lay tëddee ak bëgg la tëddee moo tax xale jigéen ñi ku sa bopp bi baaxul yàqu nga mm-hmm. tubaarkàlla lu leer nga wax am na solo euh, jërëjëf soxna Mariama si <laughs> foofu moom mooy baax baax bi leer ga ak wërsëg bi rek la soxla dañuy fay sa leer lan la mën taal seen bopp xanaa leer na. Hmm. leer gi nekk ci yow. waaw yow mi jigéen bu fekkee dafa am leer mbala nga am wërsëg hmm. léegi bu ñu la tëddee sa wërsëg rocc nañ ko mooy waral na nga dem ci sëriñ bu la joxee loxo bul ko ko jox muy góor jigéen yegg mu ne la jàpp ne ko. Hmm. yaa moom foofu xanaa. sa xel mi ba fu mu la woo nga wuyu. waaw am na am na yu am na am na xale jigéen ñi fi ñëw yëpp loolu lañ may jooy te ñoo yóbbante nag dañ maa yónni de dañ ma ko yóbbante man dund naa ko mais ñoom tam dund nañ ko ma xam ne lii kon du ay fo xanaa leer na. xale jigéen ñi lay seetaan fi mu nii boo amoon benn conseil boo leen di jox loo muy doon. dañu moytu sëriñ si bu bari am na ñoo xamante ni seen far yi rek lañ jël di leen njàmbaanal tëj leen ci biteel ñu def loo leen tere ñu na ñoo xam ne seen i bopp ngeen di tëj seen ci soo toogee tuuti mbaa nga tëdd sa xel nekk si day xëy mu ëmbal la. message bu grave loolu après la. business kon mën nañu jàpp ni euh, yenn ñenn ci def loolu business lañ ko jàppee ak bëgg tur. waaw ah, bien sûr. bëgg tur ak business ndax su Sénégal dañoo bëgg buzz dangay wax benn wax boo xamante ne dégg la rek ñu jël daal di koy rëyal ku nekk di ciy wax yow nag jàpp nga ne am nga buzz waaw noonu lay demee saa su ne Ousmane. doy na waar jërëjëf soxna Mariama Sy euh, euh, ñu del soit ba tey ci euh, laaj yi sarax lan lay jëriñ doomu aadama. sarax Ousmane li muy jëriñ na. Euh, ndax nee naa gàllankoor gu war a ñëw mbala nga bëgg place mënoo ko am mbala ngay lijjanti ay kayit sottiwul mbala nga tawat da ngay génnee sarax nga wér da ngay génnee sarax nga jot sa ay kayit leeral sa yoon kon sarax li mën a def macha allah sarax day gën sax yenn saay sangat yenn saay nga gis da ngay sang nit ay mbiram di dëgër ngay sang nit ay mbiram di dëgër ngay sang nit mu bëgg dara du bari na ko nit ñi di bu bari baaxul mais it nañuy fexe di insister di génnee ay sarax nit bu dee benn sase ndox mbala fukki dërëm suukar war nga ko jënd saraxe ko accident dee sax sax da koy fànq macha allah. di saraxe di lan lan lan moo gën ci saraxe. waaw ndox baax na sondeel baax na suukar moom day dëgëral day tas yaakaar gu bari. ndax ni muy seeyee dafay tas yaakaar meew baax na su guro guro nag moo gën. guro dañ koy génnee sarax ndax guro moom li mu mën a def moom dafa bari guroy takk sëy mooy tudd doom kon guro baax na dafa barkeel. waaw <laughs> dégg naa la guro booy takk sëy des guro jubóole leen. kon nag ak tàngal ak eh, eh, ñaari sarax yooyu bu ko nit ñi ne jàmm rek na ngay dégg sa tenkiw de ah. Ah. yéen ñi seetaan dégg ngeen ah, yooyu deen ko génne ndax bu ngeen bëggee dégg seen tenkiw de leen de yooyu soxna génnee dugub baax na ndax dugub yi itam booy ngeen de moom la fa nekk sàmm ñun dañoo bëgg dugub ceet laax la ñuy jox ceet la laax boobu seen seen bëree dafa solo macha allah macha allah soxna Mariama si eh, eh, soxna Mariama eh, lan la préparé ay soppe. waaw li ma leen préparé xanaa seet bu ànd ak wasaa jox leen itam ay muslaay ak ñi sëy yi tas sëy yi tas femme yi ci insisté dafa bari te galaaju sëy dafa am sëy bala ñu koy takk dañ ko war a seetlu dañ ko war a xool dañ ko war a ñàkk ndax sëy yi ne naa njëkkee góor yaa ngi def lu doy waar am sa far wan ko ginnaaw it muy fayu di vengé wu di sa sëy yooyu fi am saa yu ñaata divorce danga ko mën a compter kon nag nee naa xeetu baax baax yooyu am na fi pour wàllu sëy mhm. yaa ngi ci bu am solo dañuy gis nit ñu muur ko mois de janvier ñi ngi ci leen janvier février mu tas bala bala ñu xubba sëy fañ koy xubbaa am na loo xamante ne pour nit ki waxee rek lu ñu xubba sëy sëy bi yaa ngi ko takk yaa ngi koy fase ko tey def def na soxna Mariama ndax ci seet rek la yam ndax xam nga des fois nit nga seetal ko ba pare eh, ñàkkul nga am nag ay bagage yoo xam ne toogaale ko ak moom pour waaw euh, mm, ah, ci baax wala ci da ci baax ndax nee naa xeetu baax baax yooyu am na ci euh, ci ki nga xamante ne day wut dara mu dëgër ki nga xam ne dafa bëgg jëkkër <laughs> te mun say ak góor goo xamante ne soxna su mu yor wàcc ko yooyu am nañ gàllaajam ak ci itam ñi nga xamante ne buñ sëy ji sëy buñ sas sëy mu tas yooyu yëpp am nañ yàllaa jëm xam ne rab mooy faral tas seen sëy am ne àndandoo am na yoo la yooyu dafa jar am na lu ci may xam nga kon nag am nañu yoo xamante ne bu ñu ci jëflanteen ba xool war nañ la defaral ñu def ko bu ñu war defal ñu am fu na ci wax ni nag moo gën a dal sama xel ñu xool ndax mën nañ laa defal ñu defal la soo demee da nga jënd sa ticket ñu ñu diagnostiqué la xool lan mooy sa feebar door la bindal garab ndax nit ki bu jàmbat bopp nga koy bindal garabu biir kañ lay wér wér jërëjëf soxna Mariama si en tout cas daa leen maa ngi nii kuy nëbbatu ko wax te xam naa ne yow ku ñemee fa nga jëm nga xam nga ñenn ñi dañuy yàqal ñenn ñi tey am na ñoo xam ne dinañ la seetal ba pare ne la garab gi lay faj am naa ko te fekk li yow mooy nga wax amaana néew fa gis naa ko benn jigéen moo ma ne ma ay soxna Mariama sëriñ ba ma dal ma ne ko foo xamee mu ne ma internet ba ma yónnee fotoom dama tiit bay lox fukki naat ak juróom benn xanaa mat na fanweeri junni ak fukki naat naat benn 13000 lay jar mbala 18000 mu ne ko boo paree nga fay ma 300000 ndaw sa ne da ko yónnee ba ko muy lekk sa xaalis sa sëy tasul bi yàlla moo ko samp kon nag du comoo koy sempi guy bu yàlla suñu borom samp bu ko comonalee simpi moom mooy simpi ko tegu fee ma ne ko génneel ma saraxu sondel ma konteel ko li mu sondel li mu atam ak atu jëkkëram mu génne ko am jàmm sëy ba dellu nekkaat fi mu nekk ba tey ba jënu si yàlla sëyam tasul muy sant muy sant <laughs> kon sëriñ nañu bàyyi duur gi wax li nekk ci nit ki ndax nit ki soo xëyee li sa wërsëg yàkkamti sa wërsëg teel a dee nit ki li si wërsëg boo xëyee rek yamal ci te ne tey lii la ma yàlla bindee lii la ma yàlla séddee mën nga xëy tey am sa benn kaañ dal ci suba mën nga xëy mu dëgër mais santal yàlla mm-hmm. te bañ a kenn bañ a xaañ kenn ndax dóor gi mm-hmm. uh-huh. dafa leer dafa war a leer Ousmane uh, ñi bàyyi leen dóore bi lu waay mënut da nga naan mënul loo ko waaye kii ma toogal fu mu jëm ñeme na ko yéen ne ci TikTok bi naa leen jël leen numéro am 77 la 060 43 77 060 43 10 loolu mooy numéro soxna Mariama si mu Serigne Babacar si soxna Mariama ana kàddu yu mujj yi ak lan ngay ñaaxaat ñi nga xamante ni nekk ci sociaux yi parce que damay insisté waat ci sociaux yi ñi ci rey ñi nga xamante xamuñu fuy metti ana kàddu yu mujj ak lan ngay ñaaxaat ñi nga xam ñu nekk ci sociaux yi xanaa ñaawlu ko ak mettitlu ko mais naan am na ñenn ak ñi ko war a amuñu jom ndax Kounkandé mënu fee def bës bu dee ne bës bi mu fi def nit wëlbati ko yëkkati ay millions dem di ko jox pour mu luxusal ko ko bu ko mënoon day toog këram di luxusal boppam di ci jëfandikoo di ci faj soxlaam mais tey toog def fi dégâts bu doy ne dégâts bi mu fi def damay xaar géej gi mu yëkkati ay millions dem jox ko kon kookoo ko tey te yooyu dañ koy faral di dund ngay gis sëriñ bu toog yor làmmiñam publicité boppam suba nit ñi xëy dem fees ba dell kon ñooñu loo leen nar a wax nit ñi wax nañ leen ko wax nañ leen ko waxati leen ko mënatoo leen yee ba yeew ba leen ku nekk la mu gëm mu nekk ca rek mm-hmm. ndax jamono jooju lañ toll ndax boo waxee ñenn ñi dañuy foon da da ngay xeex seen liggéey fekk demeewul noonu mais daal dinaa ku gëm nga dem ci ki nga gëm mais daal nañuy tey te nañu def ndànk da ci solo mën mm-hmm. mën na mën ñaan te du mën seet yooyu yëpp dañ mm-hmm. na seet lool te du mën ñaan nit mën ñaan lool te du mën seet ci at mu bees bi la ñu nekk soxna Mariama si ñu ngi ko dalal tey fas yéene waxtaan ak ñoom am na ay bagage yoo xamante euh, yaa ngi may donte jaam yi dara ci internet bi mais am na bagage yoo xam ne nag yaa ngi toogaale ak moom fii nii ah, waaw ci bëgg nu muy def ba mu mel de ci wàllu seet ak wàllu ñaan hmm. wan ne nit seet am na duñu kuut ci sëriñ duñu toxu duñu tukki duñu daay ñu ngi fii toog ku ñëw ku ñu soxla fii nga ñu fekk si ñu tëggal la daal di lay dóoral lu mel ne keteme kon xanaa li ñuy wax ñeme nañ ko lu mel ne lan keteme <laughs> ah, dëgg du ndax xam nga lan moo tax euh, am ñu fit mais li ñuy dañ ko mën te duñ ko tiitaroo te duñ fëgg suñu dënn kii lañ àndal góor bu mag kon amul lu ñuy tiit macha allah 2023 bii dama bëgg sëriñ sëriñ ñu joxe résultat yu leer nañ nañ nañ nañ bëgg mais faux résultat ak fëgg sa dënn nag ñu koy bàyyi te coupe du monde bi ñëpp a dem baax te loolu defet la gàcce la ci nit man dama gisatul jom ak ngor da ngay def benn dégât suba nga xëy génne maa tey a nañu ba nag nañu ba nañu ba ku gu gàtt gën da ngay toog ñu mën ñu daal di toog liggéey rek macha allah ku munul it nga dem jàngi xam-xam nee xam-xam dooli cere yokk ñeex la ndax saa li yombal sa liggéey ak lu koy gën a gaawal da ko war a jàng dafa am solo macha allah soxna Mariama si euh, euh, mu Serigne Babacar si gis ngeen ko mbokku internet yi moom la ñu dalaloon tey fekk ko nag ba fii ci këram naa leen maa ngi nee kuy nëbbatu du ko wax te kii ñeme na fa mu jëm résultat lay indi teg ci table ji yéen ñi naxaate dem leen ngeen jàngi xam-xam kii fi mu ñemee fi mu jëm ko ma dem Guinée Bissau wallahi cinq mois laa fam toog ci àll Euh, euh, di gën a taataan di gën di yokk sama xam-xam ndax xam naa ne am na yoo xam ne bëgg naa ko te foofu laa ko mën a jànge pour am ko pour mën a rek wut luy gën a seel sama liggéey ndax nee naa bu nit ñi di wut lu leewul yow dawal dem wut seel sell ndax nit da ngay dundee alalul gu lew ndax gor lool ngay dundee <laughs> solo kon na gaa yi di dem ci àll bi te ñeme ko lool <laughs> ñeme ko lool ba benn instant faaw nga nëbbatu daal di toog jàngaat dolli sa xam-xam macha allah. yokku cere dolli ñu waaw dafay am solo. <laughs> ay kon mbokk yi mën ngeen a jël numéro am 77 la 060 43 10 77 060 43 loolu mooy numéro am ngeen ko woowee dina leen décroché bu dee da nga bëgg a seetlu. moo xam foo mënti nekk ci réew mi ak biti réew moo nee sa kàddu rek lay dégg seetal la te da ngay gis lim la wax mi ngi noonu muy soxna Mariama si eh, eh, mu Serigne baba si ana lan mooy kàddu yu mujj. waaw sant rek eh, ndax ci yow laay jógale sant ngërëm bi ndax Seydina Ousmane jot amul te temps dafa cher. benn waxtu bi nga xamante ne yaa ngi ma koy jox ci sa temps maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm di gërëm sa copain sa xarit di koy ñaanal jàmm di ñaan yal yàlla sama kóllëre ak moom ànd bi yal gën a rafet ndax rafet na ba noppi waaye tam dama lay ñaanal jàmm sutura di lay ñaanal tawfeex ñuy santati yàlla di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ndax lu ñu mën du ñun yàlla suñu borom la lu ñuy wax yi du ñun yàlla la mais bu bu ñu juumee nañu ko jaay daal nañ safaan di baalu ñëpp di ñaanal ñëpp nag at mu bees mi atum jàmm atum yokkute atum sutura atum teraanga di ñaanal kulli góom koo xam ne yaa ngi teewlu ak di bëgg soxna Mariama macha allah. jërëjëf euh, euh, soxna Mariama si euh, sant gërëm ñeel la noonu aussi dem la ñuy jaajëfale mbokku internet yi rawatina ñi nga xam ne nii ñu ngi doon topp ci suñu page TikTok ñu ngi gis commentaire yi macha allah ñu fàttaliwaat leen rek numéro ba tey 77 la 060 43 10 77 060 43 10 bu ngeen déggante ak moom. lépp lu jëm ci wàllu seet dina leen seetal lépp lu ci aju aussi itam ci wàllu sarax dina leen ko wax kon ñu ñaanalante fii di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal mbokk internet yi nga xam ne aussi itam ñoom ñoo ñu toppoon di sant suñu caméraman bi nga xamante ni moom it tubaarkàlla di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku ci yéen yàlla mi nga xamante ni moo am jàmm ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm asalaamaaleykum wa